ministre ak RFI moo xëy di riir ci journal yi ci réew mi ubbi l'observateur yéenekaay bi jukki na ci waxtaane ñeenti ponk ba yeggee ñu ko mu di waxi troisième gi ñuy waxtaane ci réew mi a ba ci massage Adji Sarr beeg Ousmane gi fi yëngaloon réew mi ci weeru mars gërëñu génn waxi troisième gi yéenekaay bi nañu la ca Macky Sall tontu journaliste yu France 24 yi ak yu RFI moo di wax ci bu jotee danaa ca wax li ci mën a wax daal moo di duma ca def mukk lu woro ak li Sall mu ne ndax dañ leen di amnistier am ndax dañu leen di réhabiliter lu ci mën di am daal danañu xool la ca jaadu ñu def ko ca lu ñeel poste premier ministre bi mu bëgg a delloosiwaat ci réew mi Macky Sall leeral li tax mu bëgg koo delloosiwaat ba xam le ne ki war a doon ab premier ministre mi ngi cim xelam mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko yi fi juróon fitna ba fukki doomi aadama ak ñeent ñàkkoon ci seen bakkan ak commission d'enquête ba ñu ca taxawaloon ba ko Sek moom it xëyee waxtaan yi ba wax ñu ne coowal troisième mandat bi dellu si poste premier ministre ci réew mi ak fitna ji ci réew mi weeru mars lu ca nekk président Macky wax na ca la mu xalaat ci ni mu ko xalaatee laas ne nañu ci foofee fa waxee ne xam na kan lay def premier ministre bu Sénégal Vox Populi nañu waaye dolli na ci ne li fekk décret bi dellu ko jëmmal poste premier ministre ci réew mi suñu guñu ko nañu jàpp ne dara xewagul te li may wax lu ma ngay njox taka yaakaar rek waaye moom président ministre des sports Ba mu jël dogalub ajandeegum nawetaan yi ci réew mi lijjantiit la xewoon ci stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej ba am ku ca faatu santaana ne ñu defal ko plan national bu ñu koy waxee fees mën a jaar ba génnee fitna ci stade yeeg terrain football yi témoigné nañu délinquant yi bëgg a teg aw ci réew mi bëgg a fatt askan wi ak fitna yi ñuy gis léeg-léeg ci stade yi njiit réew mi Macky Sall ñaawlu na ko ba xam le matuwaay yu ci war a jël ngir mu dakk ndax jàpp na ne buñ ci jugul fa mu ñu jëmee ndox du fa am fa amoon waxi ndox yu dul jeex moo di ci assemblée nationale journal lay fa nañu ministre o di Serigne Mbaye Thiam ba mu demee démb ci assemblée nationale ngir ñu ko doon wooteel ab budgem kër gi ñu dénk séddaleem ndox mi ci dëkk bi di seen o dégg na fu musiba ak mbelengaan député yi mayuñu ko dara mu di député Pape ndox mu bon bi ñu jox askan wi nañu kii di Serigne Mbaye Thiam ministre o bu mu jëlee kàddu ga di wax wax na ni fii ki fan danañu audité doxinu seen o fim laa ga ca Fatick ci pexey soppee xar kanamu dëkk ba la tribune nee nañu ci la kilifa yi taxaw ci lëngo di coopération bu mu am dëkk bi di nim ga ca France ci la ñu fas yéene sukkandiku ba dooleel dëkk bi di fim laa ci domaine yu bari mu di lool yéenekaay bi nee nañu ministre collectivité territoriale di Omar Gueye ba mu fa demee rafetlu na bu baax baax la fa maire ba Karim Sène def mu di ci wàllu wér-gu-yaram ba ci ci wàllu njàngam yi bëccëg yi ñu jagleel tout tànk yeeg case des tout nañu ñoo ngi koy waajal fukki fan ak ñeent ci weeru décembre décembre ca lay tàmbali ba ñaar fukki fan ceeru décembre président Macky moo koy ubbi ca centre international conférence Abdou ca jam ñaajo ponk bi ñu ci yéenekaay bi nee nañu moo di tàggatu tànk ci suñuy jikko yu rafet ngir waajal seenu ubbeeku ci àdduna ëllëg njiital agence nationale case des tout-petits di Maïmouna Cissokho Khouma mi ngi leeral ci journal bi nañ li ñu bëgg moo di sensibiliser woy jur ba ñu xam bu baax baax njariñul yartu tànk ci ñaari garde côtes moo li def yooye yéenekaay bi nee nañu ña nga ñu tëye ci garde à vue ca gendarmerie bu Mbour Vox Populi nañu garde côtes yu Guinée Bissau yi moo li teg loxo ëpp nañu ñaar ñeenti garde côtes lañu